ci kaawu Balla Gaye ñoom ñoo war a seet seen bopp. mo <laughs> waaw waaw bari na foofu <laughs> waaw. Gaston dafa am benn af benn analyse bu ma def Gaston bi muy tëgg Lac de Guiers ci biir classe bi. boobu Lac de Guiers amul vingt ans. wala bu amee vingt ans ci la yem. comprendre baal leen dégg nga booba ba ah, xale yi ay ay xale lanu woon amul woon vingt ans fukk ci fayeeku vingt millions yaakaar nga ni fayeeku nga addunaak li ci biiram léegi fayeeku noonu soixante quinze millions am na nu kër am na nanu jabar am na nu njaboot donc changement am na xale yi changé nanu mentalité bi day changé du bokkul ak Gaston Mbengue 2005 ba ngay dajeeg Bac Seras Balla Diouf ñeneen ñeeng ñeneen ñoom Balla gay muut Lo booba ñooñu ay xale la xale yooyu nag ñoom ñu ko doon mag am responsabilité il faut Gaston tamit muy sóoraale loolu ñii du ñamu daan waxal déedéet ñooñu boobu États-Unis boobu amuñu oto comme daanaka boobu amuñu jabar dañuy wut mais loolu nan nañu benn standing boo xam da ngay respecté loolu ne néanmoins Gaston c'est Gaston Mbengue moom noonu la mel boo nekkee moom da nga koy comprendre. c'est un grand promoteur parce que li may wax yëpp ñoom ñoo ko fekke woon ñoom la woon ak moom parce que bi muy jël 20 di leen jox boobu kenn matu ci 5 mais mu respecté leen jox leen ko parce que maag moom ànd ñoo def classe bi boobu ñoom ñëpp comme bi ma ne ku ne 20 millions laa fay dama tiit ma ne ko Gaston xanaa da nga bëgg a yàq làmb mu ne ma non damay dundal làmb da doon dundal làmb ba def loolu mais nag ñooña ak ñii doona tunu loolu et puis xale yi tam nañ ko respecté. nañ ko jox cëram c' est pas parce que ñoom it am nañu loolu mel nañu li ma wax ba pare aussi ñu bañ a jox cër Gaston Mbengue Gaston c' est le doyen. Modou Lo Ama Baldé finalement lenteur bi mu am nii. Modou Lo problème loolu tamit nañ ko wax yéen ma Ama xam na ne yaa a aucun problème Modou Lo xam na ne yaa a un aucun problème combat bi dafay am bu dee neex na yàlla. bu saison bi tëj basket amul football amul handball amul dara amul kon làmb léegi nag bu yëpp ubbee. borom bi Boy Niang am ci kaw Tapha Tine <laughs> waaw foofu moom moo xam moom booy Niang mais man daal damaa ragal damaa ragal Tapha damaa ragal tafaatin Tine ndaxte Tapha Tine xaw ma kañ la mais ragal naa ni bu nu moytuwul dina mos a doon roi des arènes. <laughs> waa jërëjëf ah, waaw waaw waaw waaw lii lu ma def la nii innovation la mais léegi mu deñ dafa am lu ñuy waaj rek pour def ko waaw waaw waaw